jam ñaajo di waxtaane sécurité ci wàllu Afrique di waxtaane lu jëm ci wàllu ndaw ñi waaye di waxtaane lu jëm ci daluk Afrique wàllu coup d'état yeeg yi nga xam ne moo ci amag yu demee noonu mu mel ne waxtaan la woo xam ne tudd baat yi am na solo lool ndax àdduna bu ñuy tudd sécurité mooy indi jàmm bu ñu tudd ndaw ñi ñooy avenir u ëllëg bu ñu tudd njiitu réew yépp ñoo war a wommat euh, maanaam continent yi ngir jëmee ko ca kanam nooy jàngate ndaje yooyu waaw ñun de hmm. nañoo daje mënuñu ko lool ci ndaje. Mhm. waaye suivi nag la ñu am. waaw ah, suivi. suñu bu la yàlla baaxoon ba nga fekkee suñu réunion conseil conseil économique. waaw da ngay defee nun nun nun ñu toog nii. Mhm. bu ñu jóg réew dox. ndax discours yu baax yi. laa ilaaha illallah. déet waaye oustaz doon ngeen wax kii foofu. dama ne da ngay defee ñun bu ñu paree rek. mais pourtant yéen yéenay conseil xanaa loolu daal leen ko bind di ko joxe. Ah, ak ak mu jot. léegi nag. léegi nag mooy mooy suñu ndaje ñun da nga mën a discours kon mooy suñu ndaje yi rek wax nga dëgg de am na ñeenti réew yoo xam ne ci Afrique mhm. nee na ñoom dutuñu daje mhm. day ñëw Sénégal àbb ca ndaje ma mhm. dem exécuté jarutuñu jarutu ko di ñoo yey kat waaw ñoo yey kat léegi ndaje yi am na solo waaye da am lu ci lu ci soqi ko daan da dégg ause yi waaw déggoon naa ko oustaz ana ause yi jeex na mu ngi fi waaye ause yi la ko taxoon a jóg mooy ba ñu lakkee baytul maqdis mm-hmm. jàkk ja mm-hmm. la ay nit meroon jóg samp ko mu mm-hmm. ngi fi ba léegi nag tudd aussi it waaw waaye xëy ñu ne lii moo ko fi def mm. lii moo ko téye mm. moo téye ci loxob Israël ba muy def nangam mm. man di dégg guma ko te looloo ko taxoon a jóg dëgg la mais sax Afrique ñun lan mooy suñu problème kon ba mënuñoo dem maanaam discours yi nga xam da ko doon dégg ca Thomas Sankara léeg-léeg Nations Unies nga gis benn njiitu Afrique bu taxaw def discours bu bu baax léeg-léeg ñu daje ñun di ko di ko taw yi noonu ko ñoddi di ko bàkkoo mais ba léegi ñu taxaw fi ñu taxaw lu xew. xam nga bootu dafa neex. bootu waaw dëgg la de. ah waaw. an nafsu ka tifli. ndeysaan bootu dafa neex. ah. Mhm. ñu mhm. mhm. yilif lay dafa neex. waaw yilif sa bopp métti. dëgg la de ne tugg rek xam ne nañ ginaar gu ñu yenu du xam yoonu sori. jeex na jeex na. waaw loolu <laughs> moo dal Afrique. dëgg la. mooy africain mën naa am dara lekk bàyyi morom mën naa gis morom di lekk mu këf ko lekk mën naa tane morom ja dañ ko morom ja mën na koo tane mu soxore ko du ñu dem dëgg la loolu rek mooy tax du ñu dem dëgg la waaye su fekkoon ne léegi dañ koo doxalee ku am bokk say bokk hmm. ah hmm. ku am bokk sa morom hmm. penc mi sunu penc moo dàq ci penc dëgg la malheureusement malheureusement. léegi Afrique gépp daanaka noonu lay mel. Mm-hmm. tey ni États-Unis def ñoom ñëpp nu ànd. Mm. boole seen réew ya. def ko benn réew. Mm-hmm. wut benn njiit. Mm-hmm. xel xalaatu ko ci Afrique. kon Oustaz bu ñu doon wax problème Afrique tey mën nañoo wax ne problème Afrique mooy problème njiit yi la. parce que président yi ni ñu mel ci nguur. léeg-léeg mu yéem la daal ca la tàmbalee de man wala problème afrique africain yi la waaw parce que bu ma leen gisee léeg-léeg ci ndaje yooyu Nations Unies bañ rang sol seen costume yu rafet yooyu wàcc ñu protocole leen da nga naan ñii fañ jóge moom lépp gongo waaye ndekete yoo def na lu baree bari oustaz su fekkoon dañuy dem hmm. ka jóge Mauritanie mël fawu hmm. hmm. ka jóge Sénégal xaftaanu ndaw rafet wallaay sa xaftaan bi xool ni ka jóge ka jóge ka jóge Nigeria legoosu waaw tubaab bi moom lam lam sol moom loolu yëfam la mm-hmm. nga sol yëfam dem fekk ko ci yëfam ngeen toog di mm-hmm. waxtaan mm-hmm. léegi te nga complexe wallaay wallaay ah oui léegi te nga complexe la dëgg la ca li ñu am ñun duñ ko yóbbu ñoom dañu indi lañ am ñoom ñu ñu jël ñoom lañ am ñoom boole ko ñu ñëw toog nag wallaahi wallaahi ndeysaan dara mënu faa sotti dëgg la ndax mënta sabba bi xawmin fa huwa minhum jeex na tàkk mu jeex tàkk wallaay wax nga dëgg yàlla dimbali wax nga dëgg amin yaa rabbal alamin kon de mi ngoog euh, pare naa fi itam Sénégal